damay ko wér ak mbooleem njabootug sëriñ Tuubaa gi ak ñun taalibe yëpp ak jullit yëpp itam di ñaanal sëñ moor Gaawaan mu yàgg fi te wér mu fi toogee jataay sëñ Gaawaan ak sëñ Abdou Khadir ak sëñ Aboom sëñ Modou Mamoun di ñaanal nag sunu wasiila ji di sëriñ Cheikh Anta Mbacke mi ci léegi and ak rakam serigne lambake. Balla Mbàkke di mi serigne Modou Rokhaya di bu baax ñu ñaanal sun wasiila wi di serigne Cheikh Anta sun borom yagal ko fi ta may ko ak wér dama wax ne serigne bi bu ñu dajale won feppi suuf yi ci ndiarim yeb sante lako ko du tax mu doy ndax kenn mënu laa fi kenn mënu fi ndax amuñu la ñaar yoon amuñu la ñett buñ la gisee ak buñ la gisut yemu kenn ci ñu sunu lepp nga sunu wayjur nga sunu mag nga sunu sëriñ nga sunu lepp nga sa jotaay bi couleur na jotaay yépp bis bu fi massa bufi jaar sajatai bu fi massa jaar sa jotaay bi ko gën sa jotaay mo gën ci jotaay ci ñun kon mbacké yàlla na la fi sa yàlla na la fi yàlla bàyyi te may la wér gën naa dalum xel ci institut bii nga xam ne fas yéen nañu ko tàmbali ba nga ci dugalee sa kàddu yàgg ma sëñ Mamour Samb te lu ngeen mës a dugal seen kàddu rek suñ borom def jamono yi ci ginnaaw fii lañ toog di wax ci mbirum pàkk bi te jotuñu ko woon nga yëkkati ci sa kàddu sëñ Mamour yëkkati ci kàddoom suñ borom sottil tey jii fond fondement naa ba fondement bi daara ji ag fondation bi agna nga ñëwaat waat sa kàddu sëñ Mamour yëkëti kàddoom kon gëm na né fa ko yalla jaarale won fa lay jaaral waye bi sax dañ ci far doli lenen ndax nga woné aw yoon kon nak ñun amuñu sax fay li ngay def lepp ci sax mbaax rek da koy defee waye yank yalla am nak fay ak sa wajuru wu seen mu yalla nañ la fay ci barki Euh, sëñ Fallou Bousso Tamba wax na ci thème bu am solo boo xam ne euh, al adlu asaasul mulki euh, bokk na ci lim doon wax maanaam bi yëpp génnut loolu waaw maanaam bi yëpp génnut loolu ñu waxam jub na maandu na rafet na te xam-xame na yàlla ñu ko yàlla fayal fii ma nekk ñoom ñoo ñu laa fi nekkal ndax maa ñoom ñoo seq pénc mi kon suñu mag joju di suñu bajjan soxna mam bu sa Tamba yàlla na fi yalla yagal te may ko wér waye serigne bi itam gouverneur taxaw na ci bis bi taxaway bu rafet taxaway bo xamne ben la bu te moy jikkoom comme ni nga ko xamee moy jikkoom ci wax lu bax ak taxaway bu rafet euh, gouverneur kon sa kaddu yi nga yëkëti ñong koy rafet lu bu bax tay rafet lu mbollem kaddu yo ne rot na fi di gërëm ñepp dafa guddii ta jotaay bi yagg dama ma xam ne defal teranga ci bis bi bari na te buma tambali won lim dana joom wala mu gëna a guddi te bu Cheikh galo waxe ci turu suñu tur rek japp na ni ñepp gis nañ ci seen bop te ku Cheikh baye yit Samba Awa lim nu kon ñu ngi sant ñepp waye ñuy teunk tuuti rek ginaaw bu ñu lo te banexo lol jàngu señ muntaha yi ñu ngi koy sa jotaay bi ñeuk ak sa di la ñaanal yalla ngeureumal señ ñu ngi lay sant di la gëreum di xamal ne gone yu ndaw yi ñu ngi fi ñi nga xam ne dañoo nekkoon nag ñun di jàng lu bari ñu waroon a wane seen manin waaye nag sëriñ bi bu toogee te mu guddi itam du ñu may lépp itam ñu jël lépp nag faaw nag ñu xam ne guddi na te bi yàgg na moo tax ñi ma àndal di liggéeyal sëñ Tuubaa loolu maa ngi leen ciy jéggalu bu baax a baax a baax di sant nag sëñ bi te taalibe yi lépp lu fi nekk taalibe yee ko yëf taalibe yi maa ngi leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal waaye nag bokk yi sëñ taxal Bachir dafa ñëw indi benn déclaration boo xam ne daf ci soññee xam-xam ak liggéey te ku ne xam na ne sëñ Tuubaa daane digle ne dee leen julli ndax mooy tax ñu xàmmee leen ci jullit yi ak kudutub jullit te luy tax ñu ñu boole la ci ak jullit mat naa fonk daal dina itam dee leen jàng dana tax ñu limale leen ci sama ñoon te luy tax ñu limale leen sama ñoon matna naa dal ne dee leen jàng ndax dana tax ñu limale leen ci gaa yu baax yi te luy tax ñu limale la ci gaa yu yi ne waye ñet yi nak li tax ngeen man ko moy liggey ndax liggey ci ngeen di téye seen ngor ak seen diine ndax ko la manal sañal la kon nak bokki ay talibé lañ te yoon wi dafa am luñ ko gëna xamé mooy liggéey yoon wi yoonu yëngu la may soññ sama bopp ak njaboot gi ci ñu delluwaat ci tool yi ak ci sàmm mi ak a jàng ak a jàngale lépp lu nit di suturloo te di ko terloo te mu dagan na nga ca dellu te xam ne nag koo mën a doon yore gën nu yor la boo gënoon a nekk ci dàq jaamu yàlla ci àdduna te nu yor la ne la wóor ne kat ña yor ñooy jël sag jaamu yàlla lislaam nag dafa soññe lool ci jëf ak fagg lew ngir jullit bi moom nekk ci ab société koo xam ne dafay indi ba noppi di yokk tey dolli walis mu bañ a nekk ku ñàkk koo xam ne day tàllal ab loxoom te loolu Moustapha al Karim Muhammad yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ko jàngale feeñ na lool ci aw doxalinam ndax moom day tagg na loxo boo xam ne day jëf di liggéey nga xam la borom di dunde ci ñàkku bopam lay bayiko loolu leer na lool ci yonnati bi sallallahu alaihi wasallam waye bu nee liggéey nak bokk euh dafa am liggéey bo xam dañ ko faratal ci bép mu kàllaf loolu moy liggéey ba ngay nga faglu lew ngir jublu ci dundal sa bop ak dundal sa njabot ak lo xam dañ ca fay say bor mudd ci say aajo ci kem sa liggéey boobu moom farata la ci képp ku am ak ak wéram farata la nit ki noonu liggéey boo xam ne it dañ koo sopp ci lislaam mooy loo xam ne da koy liggéey ngir danga ca am lu dolli ci yitte yooyu ak aajo yooyu ngir la cay dolliku di nga ca mën a faj aajoy doomu aadama yi man cee dimbali ku xiif man cee leele itam ñu wax ne nag al amal al mustahab hada liggéey bi nga xam ne lislaam da koo sopp te nga ciy dimbalee di ci leele ñi xiif nee na loolu moom moo gën sax dugg xalwatu ngir wéetal yàlla subhaanahu wa taala li tadiyati nawafil min al ibadat inda ba'di ahlil ilm kon nag ñu xam ne jaamu yàlla moom du ay julli képp tey du ay woor dong jaamu yàlla moom bokk na ci nangoo liggéey di daan sa doole ndax yàlla subhaanahu wa taala da koo digle ne fa saa yu ngeen noppee ci jaamu yàlla rek نغي نوب لاغي ليغي فاذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله فالايه صريحه في الاذن للناس بالبيع والشراء والتجاره بعد الانتهاء من العباده بهدف الحصول على الربح والتماس فضل الله بالسعي والتجاره موتا سن بروم هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكل من رزقه واليه النشور كون ياو دومو ادمه نغا خامني ادونا كت ميغي تخاو تي ليغي اك جاب تي سبب يلاي ماي كون نك فاغلو ليو اك نانغو سون تي لا نيت كي دي مانا جارنيو لنين لو مانا جارنيو رك دانا لا جورال اك وورو الجد بالجد والحرمان بالكسل فانسبت سبعا قريب غايه الامل موتاخ يونتي بي صلى الله عليه وسلم tag mbollem motax tax yonent bi soññee sallallahu alayhi wa sallam ak mbollem diyanatu samawiya yi ñoom de soññee nañ ci liggéey ak wut métier dañ ko def ne lu mënta la ci ak dund ngir doomu adama man ci mëdd ay ajom fal amalu muhimun li takamul al ijtimai bayna an-nas li hadha hath dinuna al islami ala al amal xaytu warada عن النبي صلى الله عليه وسلم مو واخني يوننتي يو بري داي دانا داكو ملني يوننتي يالا نوح دانا دوندي او نياخام كون نك بوكي دوندو با دوندو جيخ دوندو سي ساو نياخ مو سي گن موتاخ الانبياء الذين ارسلهم الله سبحانه وتعالى لهدايه البشر هم خطوه لهم على الارض فقد كان كل نبي منهم يعمل بمهنه مختلفه maa annahum yamtalikuuna asmal mihan ala al ard wa hiya adawatu ila llahi subhanahu wa taala yonent yi alayhim ñi yàlla yónni ngir ñu gindi askan wi te jubal leen ñoom ñépp day amoon nañu ay métier yu wuute te kat amoon nañ mission bu gënoon a kaweloo loolu lépp te mooy teg nit ñi ci aw yoon gindi leen ci ak njub àggale leen ci yàlla nàmpatal leen yitam ci yàlla subhaanahu wa taala moo tax ñoom yonent yi kaana al ambiyaau mithaalan wa namuusajan fi l amal wal jidd fi l moo tax yonent yi nekkoon ay exemple ci nangoo liggéey ak nangoo sonn ci dunduk àdduna ndax wa kaanoo yaakuluuna min amali aydihim bi kasbihim seenu ñaqit lañ daan dunde ñoom ñépp ku ci nekk saw ñaq la daan dunde te ñooñu day ka ca jiitu woon mooy yonent yàlla aadama alayhi salaam abbaykat la won ka ca top muy abul anbiya wa khalilullah ibrahim alayhi salam kana fi majalil bina fa amarahu allah subhanahu wa taala bi bina'il il fa qad takaffala huwa ibnuhu isma'il alayhi assalaam ñom day mom yonent yàlla ibrahim ci tabax ragniko won na ci lol ak maçon ak ci lu jëm ci walu gogogo kon nak bokki ndegam yonent yi ridwanullahi alayhim ñoo fonkoon liggéey sàkkantuma doomu aadama yi ci des yonent yàlla ismail ab rëbbkat la woon yonent yàlla idrisa dañ koo tuddee woon idrisa ngir bëri lu muy jàng ak lu muy jàngalante ti téere asamaan yi malaaka yi daan ko jàngal waxtu win ko tànnee mu di ab yonant moo tax moo njëkk a bind ci big te moo njëkk a ñaw ci puso te moo njëkk a daax ay yére te wóor na leen ne bu njëkk nit ñi dañ daan sol ay der ba ay der yoo xam ne yu yu bàyyi may la moom moo njëkk jël ay yére defar ko yu tukkee ci leen moo tax ñu ko daan wooye huwa xakimul xukama bokk yi yonent yàlla nuux alayhi salaam ab menuisier la woon gis nga ba suñ borom di wax ni fa aw awxaynaa ilayhi an isnail fulka bi ayunina wa naa fa ida jaa amruna wa faaratoon yonent yàlla daawuda alayhi salaam ab tëgg la woon kon nag moo bu ñu karim mi nga war ne wala qad aataynaa daawuda mina fadlan yaa jibaala awi bi ma tayr wa allanna lahu alhadid an i'mal saabixaatin wa qadir fi sard wa amaloo saalihan inni bi ma basir bokk yi bu ñu xoolee yonent yàlla yuusuf alayhimu salaam mënoon nañoo wax ne ab la woon wala ab ministre la woon wala fon fonctionnaire la woon ginnaaw bu ko suñ boroom dë dëgëralee boole ko ci ak ngóor bu ñu xoolee yonent yàlla isaaqa alayhi salaam ak yaquba alayhi salaam ak shuaybu alayhi salaam ay sàmmkat lañu woon yonent yàlla ilias ab rabbkat la woon yonent yàlla muusa ab sàmmkat la woon inni uridu an unkihaka ihda ibnatayni haatayn ala an tajurani thamaniya hijjatin waaye nag wa in at atmamta asharan fa min indik bokk yi kon bu ñu xoolee yonent yi yépp amoon nañu métier daan doon daan seen doole di dunde seenoo ñaq bu ñu wàccee ci saxaaba yi nga xam ne ñoo àndoon ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ginnaaw boo xamee ne yonent bi ab commerçant la woon jóge ca nekk ab sàmm jóge ca nag daal di nekk nag di sàmm mbindeef yépp nekk ngën gi mbindeef yo ki ko njëkk a wuutu ci kaw suuf di Aboubacar Sadiq taajira ak michetin da daan jaay ay yére bazaaz la woon Omar ibnu Xataab ab courtier la woon Ousmane ibnu Affan ab commerçant la woon Ali ibnu Abi Talib da daan yett ay doj Abdourahman ibnu Awf ab commerçant la woon Zubayru ibnu Awaam ab ab tailleur la woon Zaad ibnu Abi Waqaas da daan yett ay fit di ko jaay di ci man di suturlawu omar ibnu aas ab buuse la woon abdullahi ibnu masud ab baykat la woon abu hurayra ak abu sufyaan dañ daan jaay jiw kon yonent yi kon nag bokk yi bu ñu xoolee yonent yi xool saxaaba yi mën nañ cee jàngate ne kon benn métier bunut te benn métier itam suufewut li bon kay mooy xeeb lépp lu lay may kon buñ jàng buñ gisee loolu dañ ciy mën a dégg ne kon lislaam kon nag bokk yi bu ñu jàngatee loolu dañuy daal di mën a gis ne lislaam dafa joxe solution wala dafa indi ab tontu ci lépp loo xam ne doomu aadama daf koy aajowoo ci ak dundam inna al islaama qad aata al jawaaba ala kulli cheyin yaxtaajuhu l insaan wallahu jalla wa ala qaala wa nazalna alayka alkitaaba tibyaanan tibyaanan li kulli chey الإسلام هو التغطية الشاملة للحياة كلها إنه هو الضابط لقضايا التقدم الحضاري جميعا وهو الموجه وهو الأساس الذي ينبثق عنه التقدم الحضاري بقي بني جسين الإسلام مو أندي لودا كاب دندق دومو آدم بيول دارا ديم بكتيك ألك الإسلام فاقونا لب batax na kuko ragal dang ko réré kon bokk yi motax l'islam djel l'islam indi ñaari farata fardul ayn ak fardul kifaya fardul ayn mom ku ne xam nako moy ni ngay jamo yàlla lolou ñépp la war ni nga wara jàppe ni nga wara a ni nga wara woré lolou fardu fardu ayn la ñépp ko xam fardul kifaya nak ida qama bihi al ba'd saqata an al baqin bu ci ñen ñi taxawé mu rot ci ñeneen ñi ñii ci des moo tax lislaam dafa jël wa hakada yactabaru l islaam ann kulla ilmin yaxtaajuhu l muslimuun fa huwa fardu kifayatin moo tax lislaam jël mbooleem xam-xam yi nga xam ne amal na njariñ doomu aadama mu jàppe ko fardu ki kifaaya nga xam ne fardu kifaaya mooy loo xam ne bu ko ñëpp maasee bàyyi bàkkaaru waaye bu ci ñenn taxawee ñoo xam ne buñ ci taxawee danañu mën a jox danañu mën a satisfaire ñi ñi yëngu ca domaine booba su boobaa nag bakkaaru ga ca lay doororot moo tax ñu ne law ixtaaja al muslimuuna li sinaati l ibra walam yuugat bayna al muslimina man yuxsinu sinaataha fa kullu l muslimina aathimun jullit yépp bu ci amoon ku soxla ab puso benn puso rek bu ñu xoolee gisuñu ko mën a defar puso ci jullit yi jullit ñëpp danañu maase bàkkaaru kon domaine bu ne lislaam digal na mbooloo ñu jóg dem sàkku ji xam-xam boobu ngir mën a mëdd aajooy doomu aadama yi boo yi al islaam huwa taqaddum ndax fa innahu la yumkinu an takuna ummatun mutaqaddima madaniyan wa thaqaafiyan bi aanin waaxid illa bil islaam amul kenn ko mën a suqaliku mbaa nga yokk jëm ca kanam ci dul lislaam li annahu yafridu xawaanina taqaddumi al madani fardan ndax moom dafa jël lépp luy yoonu yokkute mu mu def ko farata gàll ko ci loosi jullit yi wa fil waxti nafsi yafrudu qawaanina taqaddumi thaqaafi noonu it la def ci fànn googu googu kon nag lislaam dafa jël juróom def ko muy baasu defal juróom yooyu bi ci jëkk mooy istiglaalul ard ak exploiter suuf ak tanzimul waxtu wa barmajatihi ak temps nga jël ko fonk ko gérer ko ba doo def lenn loo xam ne euh, dafay dem ci ay ci ay caaxaan l'islam dafa jël ay waxtu walla temps boole ko ci développement jullit nga xam ni nit ki waxtu wu ne am na lum ca war a def ak fum ko war a fekk ak ci lu mu war a yëngu mu bi ko ñetteel mooy al ixtisaas ay expert domaine bu ne l'islam farataal na ci jullit ñi ñu dem gëstu ko xam ko ba man caa satisfaire mbooloo ma jóg wuti liggéey bu booba ñeenteel bi nga am an nizaam al mustaqir wal mustamir nga am organisation boo xam ne dafay sax te nga xam ne boo nee dama bëgg a béy di nga am irtis koo xam ne dafa spécialiste wu ci wàllu mbéy man laa jox ay orientation ci béy bi ko juróomeel nag bokk yi mooy al thaqaafa al munasaba lit taqaddum moy am culture bo xamné da fay dëppoo ak dégg maam développement motax subhanahu wa taala bu diké ci istighlalul ard ci ak supplanter souf huwa alladi anshaakum min al ard wastamarakum fiha bokki عندما تستعمل عندما تستعمل السين والتاء في اللغه العربيه فالصيغه تفيد arabiya بو عرب جفنديكو سين اكتا تي لانغو عرب da fay tektale ak sàkku kon suñu borom sàkku na ci ñëpp ñu jema dundal suuf te jema dem lag bay te gis nañ ni khalifa yi touba yi ku fi massa tok yaangi soñe ci am bay kon nak fal ayatu khatibul insan bi anna bi anna allah an anshaaka min al ard wa talaba minka an tuammiraha kama qaala subhanahu wa taala huwa alladi xalaqa lakum ma fi l ard jamihan kon sun moo bind lépp lu nekk ci suuf tàggatal ko doomu aadama ngir mu man koo jariñoo xalaq min ajlik alayka an tastafi an tastafida ayuha al insaan minhu alam anna allaha saxara lakum maa fi samawati wa maa fi ard kon nag bokk yi bu fekkee ne retard dafa am wala ñu ñàkk yokk wala ñu ñàkk jëm ca kanam wala askan wi di dund aw mettit ngir ak ak ñàkk bu ñu tuumaal lislaam ndax l'islam tek na limu wara tek a teg wax na li mu wax fa idhan fa laysa al islaam huwa al masul an takhallufina bal adh-dhanbu adanbu mutaqallifin alladhina ya'jisuna amama at tabia ta buñu xolé bokk yi falsafatul amal fil muridiyya ni yonu murid fonke liggéey jox ko wàcc way wu reey serigne touba wax ci wax ju reey mom dafa jàpp ne liggéey bu jaar yon aw yon la ci يوني فغو لولو ان العمل المشروع